mbas mi di coronavirus bëri na ay njeexital yi mu indi ci wàllum tàggat yaram bi fii ci Sénégal rawatina ci ligue professionnelle de football bi joueurs yi ñu jot a seet si nag ñoom lii lañ ñu jot a dénk jëm ci ay coppite yi nga xam ne mbas mi daal na leen ko imposer. ay footballeur lañ te football lañu ñu am quoi bien vrai que ni nu mu tuddee feebar bi am na mais xam rek ñun si football bi la ñuy ñàkk si la ñuy dundee si lañuy def lépp lu ñu am. waaw ay sant yi métti na trop métti na ba métti fu mu yem. su période bi da la daan fekk lu mu dee dee période bi dañ daan dugg hivernal sant bi amoo depuis 8 mars ba tey entraîné wu ñu joué wu ñu ensemble c'est difficile quoi. sant dafa métti en tant que sportif laay waxee quoi dafa métti trop trop trop si sa dund rek dafay changer si lu bëri sa dund. Euh, amuñu beneen métier bu dul football tey jii suñu yaram tàmmoon na benn rythme boo xamante ne toog 2 mois 3 mois compétiroo rek. tu te dis que ni tu reprends à zéro parce que tey jii ñun bokkuñoo ak ñi nekk ci bureau yi nga xam chaque jour dañuy xëy yéeg seen oto dem ñëw ñun bu ñu dawul defu ñàkkuñu maanaam suñu yaram luñ luñ ko war a laaj ëllëg pour mu jox ñu ko day métti parce que tout récemment suñu bopp yëpp fàttu na parce que je me dis que ni tey jii nii championnat bi ci un an je me dis que ni trois mois lañ compétir ndax toog nañu six mois footballuñu. ginnaaw terrain football yi tëj nañ ko. géej ak lépp luy salle d'entraînement itam ñu daal di ko tere jamono yi ana nan la yile sportif mën a def rek ngir daal di maintenir seen forme physique ku nekk nag daal di wax ni mu gisee mbir mi. plage yi tëj nañ ko salle yi mooy loolu salle yi foog nga am xaalis pour dem te instant liggéeyoo liggéeyoo mujj bi da ngay obligé di toog te jour moom bu toogee xam rek li yàlla xam mooy loolu. ñun côté bii ñu dëkkee nii boo fi solee short di dem sax dinaan da ngay footing boo dajeek policier yi ci mbedd yi dañ lay delloo nga delluwaat fi nga jógee fii la ñu am ab abdominaux gainage pour man loolu rek yorul jour quoi sa koofu war nga mën di xool fan la koy fan la toll ndax tey jii nii dañu doon sàcc di dem mais sàcc boobu mënatuñ ko def parce que amatuñ fu ñu ko defee en fait ndax terrain yi boo fa xëyee dem policier yi ngi foofu taxaw di la xaar ndax tey jii am na loo xamante ne nit ki jomm ko quoi di dem di dàqanteeg policiers yi loo xamante ne suñu santé la moo tax ñu ngi nii dañoo toog defuñu dara. da ngay yeewu boo mënee ngoon gi ngay def footing wala nga jouer match de gala dafa métti quoi en plus doo gagné dara instant bi. mbas mi di coronavirus indi ay njeexital ci wàllum koom. yooyu la jafe-jafe nag dem ba wàcc ci ñi nga xam ne ñooy footballeur professionnel yi ñoom nag fi mu toll nii ñuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar eh, ci diggante ay contrat yoo xam ne demeewul noonu ci wàllum payoor wala bokk yeneeni jafe-jafe yoo xam ne bokk na sax ba léeg duñ leen di faral di fay seeni biiri club. am naa fa ba léegi nii mais euh, ñu ñi doon fay ñu ngi doon fay ba tabaski bi si la ñu xaw a kii mais joxuñu woon ñu kii lépp dañ ko doon dagg wàññi kii wàññi si presque. nu mu tuddee trois quarts mun naa wax trois quarts la ñu wàññi si sañu salaire te xam nga jour moom boo wàññee trois quarts salaire dara du fi des fii jour li ñuy signé fii Sénégal mooy loolu. équipe bi ma nekk am naa si contrat parce que sama contrat jeexul woon quoi dese woon naa contrat instant day métti quoi financièrement day métti parce que ñun doon nañu fay mais depuis deux mois yi passé nii dara fonctionné wul quoi dafa xaw a métti quoi financièrement day métti léegi bu fekkee dencoo woon dara rek day xaw a métti pour nga dund quoi. actuellement nii sama contrat jeex na ak euh, Azak Ñambour waaw sama contrat jeex na ñoom ci biir pandémie bi la sama contrat jeexee parce que bon mois de mars la ñu arrêté euh, toog nañu deux mois trois mois yoo xamante ne bon euh, jot jotuñu woon salaire mais après situation bi nga xamante ne fédération bi moom la joxe ñoom tegle nañ trois mois jox ñu ko. Ah, bu desee ba léegi ci wàllum contrat yi. bëri na ay joueurs yoo xam ne léeg-léeg dinañ koy signé te dañu xam dëgg-dëgg li nekk ci biir ndax ñàkk agent sportif boo xam ne dina leen mën a guider di leen wan li nga xam ne mooy yoon wi. loole nag di faral di jural yenn ci ay joueurs yi ay jafe-jafe yoo xam ne dinañ koy faral di jànkonteel ak seeni dirigeant club jëm ci ay contrat yoo xam ne li nekk ci biir duñ koy faral di xam. ci contrat yi ci nekk prestation de service la. mooy boo boo entraîné wul kenn du la fay boo boo fubalul kenn du la fay léegi nag ñoom noonu ñoom dañoo ne geste la ñuy def en pour jàppale ñu quoi geste la ñuy def parce que mun ñoo seetaan léegi kon ko ñun prestation service la ñu signé te ñun presque joueur Sénégal bi yëpp xamuñu lu ñu signé seen club bi maa ngi fi gis ñu am agent ñoo xam dañ leen jox contrat ñu dem tim ko seen agent di jox ko ñu liiral leen ñu signé loo xam te ne xam nañ ko. dañ ñëw indi la benn contrat boo xam ne yow da nga di nga ko signé parce que la plupart yàlla boo doon jour bi door dañuy bàyyi ba ñu marché bi des na ginnaaw suba ñu ni la contrat bi ne la boo ko signé les dossiers foofu comprendre parfois ñu ni la par saison ne la par saison lañ lay fay ñeneen mën nañ def ne dañ lay fay annuel quoi mais ñeneen dañ koy def ne par 6 mois lañ lay fay wala par 8 mois après bu jeexee pendant mois 4 mois yi ngay toog vacances fay su fekkee ne comprendre loolu après da ngay nekkat si ay erreur ngay ne. tey jii nekk na monsieur boo xamante ne war nga mën a am fooy bootu. parce que tey jii benn nit kase munoo demal sa bopp ndax Sénégal li fi ne yëpp ñëpp xam nañ ko tey jii dañuy jëlee jour nawetaan indi ko signé la contrat deux ans ñu ne la deux ans nga signé mais au retour cinq ans lañ la signé cinq ans lañ la ndax man dégg naa ko du benn yoon du ñaar yoon musuma dal nag mais am naa samay copains yoo te ne ñu ngi dund lool ci ay club te bon liñ leen di fay sax demeewul noonu. ngir nag mën a génn ci li nga xam ne mooy jafe yi ñuy jànkonteel. yile joueur nak dañuy mujjé lélé léeg jël dàll yi teg na le di dugg ci yeneeni xéti activité yu tu mel ni vente en ligne service de livraison ñu gën ko xam ci càq-càq ak yeneeni xéti activité yo xamné dina leen mëna a jural koom ginnaaw fi mu toll nii football bi dafa taxaw non instant yi amuñu benn revenu financier dañoo tok instant yi mooy loolu parce que joueurs yi bari sax légui dañuy def càq-càq suñ côté bi fi mom suñ joueurs yi moom génn gi yépp instant bi càq-càq la ñuy def cak-cak la ñuy def quoi waaw man moom si période si tabaski bi laa xawoon jël li ma dencoon jëndoon si ay xar après jaayaat ko quoi doon jéem a téyewaatul dara financièrement moom bon c'est difficile pour tout le monde waaw parce que su mon nee am activité bu ma euh, à côté damay wax luma neex instant ça ni bon euh, affaire bi lañuy xaar mu reprendre mais bon ñu ngi jéma gérer quand même tamit quoi. Euh, bu amna ay xeetu subvention yo xamné wa fédération CAF wala sax FIFA fas yéene nañ ko jox wala amna bok luñu lu ñu a ci yenn club de football yi. mu mel ni loolee saafarawul problème bi nga xam ne yenn ci entraîneurs yi ba ci joueurs yi ñu ngi koy dund ci seeni club kàddu joueurs yi nga xam ne tàllal nañ leen suñu micro moo tax ñoom ñooñu le ñu daal di dajaloo créer ab syndicat. dégg naa jox na ngay situation mais situation ñun gis ñu ko. joueurs yi gisuñu ko te bu ñu koy jox sax normalement war nañu woo au moins léegi joueurs yi am nañ benn syndicat bu leen représenté syndicat boobu war nañ si woo quelques jours ñu ñëw ñu xool nan la ñuy defee pour joueurs yi kii quoi gis seen bopp si si affaire bi mais joueurs pour dire vrai gis ñu seen bopp. syndicat bi pour man loolu lay jëriñ quoi sa situation joueurs yi du dund nii syndicat bi moo si mën a génnee gars yi ñoo mën a taxaw oo gars yi waxaat ñoom pour gars yi delloo joueurs yi seen droit parce que joueurs ñu ngi sous ba tey parce que instant joueur bi tamit. doo moom sa bopp pour signer ji jour bi si doon génn étranger gars yi ñoo lay jël ne sa contrat dafa des kon pour man war nañu mën a fay suñu xaalis quoi parce que loolu ñoo xam moom dañ am contrat syndicat yi war na mën a génn wax ñu jëloo jour yi seen droit ñu respecté contrat yi gars yi signé. dama koy rafetlu initiative bu rafet la parce que je me dis ni loolu waroon nañ ko def sax bu yàgg. mais waruñu woon bàyyi ba heure bi mais tamit euh, dañ koy rafetlu tamit bu baax a baax a baax a baax ndax euh, suñu avantage la ñun joueurs yëpp tey. développer football local bi fii ci senegal lu war a mën a nekk la te sax nekk na li nga xam ne ñoom ñii di footballeur professionnel yi mooy seen rêve ndaxte jàpp nañ ni war nañu mën a tekki ci football bi daal di mën a investir seen biir réew. waaye nag loolee nekk loo xam ne liggéey bu rëy lay laaj te yoon bi mel ni des na lu bari ngir dëgg-dëgg ñu am football professionnel fii ci Sénégal. football fu mu toll léegi football fu mu toll léegi léegi comme que yeneen da ngay dégg ay équipe Guinée seen joueurs yi ni ñu kii casé des fois damay déggante ay booy boo yoo xam te dañu nekk fenn Afrique fii la ñuy nekk si yenn club yi club Afrique yi mais ils sont bien quoi nga xam ne ñun. du yoon parce que Sénégal la ñu am ñun Sénégal la ñu am même bu ñu demee voyager football dañuy ñëwaat mais mieux vaut ñu defal suñu championnat ba xam ne du ñu ñee si keneen du ñu ñee si keneen te loolu war na mën a nekk. footballu Sénégal tey jii mu ngi ñuy wan ni jàpp ci kase rek wóorul quoi lii rek daf ñuy wan ni jàpp ci kase wóorul parce que tey jii xëy na li may dund moom la sama yeneen morom tamit di dund wala ñu ngi dund piir parce que tey jii amuñu lu dul football bon xëy na ci lañ doon am as bu ñuy am di ci mën a faj su ñuy ak affaire yooyu noonu quoi mais bon instant yi nii moom suñu bopp yëpp a jaxasoo. mais ñu ngi waaj def loo xam ne joueurs yi leen delloo jox leen seen cër. man moom amu aw ma benn activité bu may def instant damaa toog di xaar affaire reprendre di lancer appel euh, fédération bi pour ñu gëstu ñu quoi parce que ñun joueurs yi sonn nañ trop parce que fu ñu yóbbu affaire yi sori na trop parce que janvier nga nar a toog li ñu jot a dund rek dafa métti boo naree toogaat ba janvier day gën a métti si ñun te instant yi da toog yow nga doon xëy di def. ba léegi dañuy def si yow. waaye nag eh, ginnaaw loolu ñoom ñu ngi xaarandi li nga xam ne mooy reprise championnat bi ñu programmé ko ci janvier eh, bi ñu dëgmal.